may nuyu leader yi fi nek yeb ku gis ku gis plateau bi fi ñep ngeen may ma wax leen ni ku gis Cheikh Tidiane yum wala ma honorable mon jeune frère un de mes rares dans la classe politique de Fall gis suñu sëriñ suñu kilifa sëñ Mansour fi gis nag suñu doyen bu exceptionnel exceptionnel efficace def liggéey bu extraordinaire ci coalition bi te nit ñi xamuñu ko peut-être muy suñu doyen Habib si gis ci wetam docteur Cheikh Tidiane Dièye bi avenir bi ñu bëgg gis suñu shérif Ahmed Aydara waaye defe naa Alaaji Malick Gakou ak ñi fi nekkul ñi fi teewul parce que newuñu fi sama yaay ji Ayda Mbodj koy ñaan mu yokk ñaar yi ndax actuellement ma ga Màkka di umra Cheikh Tidiane Dieye Moustapha Girassi Djibril Diop euh, mon frère Thiam Babacar Diop

benn étape la rek ci fi bëgg jëm nañu d'abord suñu combat dafa yaatu combat africain la panafricain la Afrique dafa tàyyi dafa sonn ci nekk mbalitu des bi les Africains en ont marre d'être à la traîne de l'humanité les Africains ont décidé de prendre leur destin en main et partout en Afrique s'exprime désormais le réveil des consciences. L'éveil des consciences, vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, vous voyez ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe en Guinée et vous voyez ce qui se passe ici au Sénégal. Quand élection locale ben étape solo bu ñu fàtte ni fi bëgg jëm wala li ñu fi ñu yegg pour soppi réew mi soppi Afrique ëpp na loolu moo tax ñuy waat ci mobilisation autour de la coalition dañoo génn ci investiture ñepp xam nañu investiture lu metti na bari na ñoo xam ne mer nañu parce que lañu ñu foogoon wala lañu ñu bëggoon amuñu ko waaye bu ñu fàtte ni àdduna bi wala Sénégal du taxaw Kérok le 23 janvier 2022 Le suñu mbëbët ci Sénégal ak la ñuy du jeex le 23 janvier 2022 kon ñi ngi woo ñëpp ñu dellu si di mobiliser autour de l'essentiel, essentiel l'essentiel l' coalition bi ñu am ñun ñëpp xam nañu liy soppi Sénégal du génn ci lii kon yéen ñi teew loolu bu leen ko réeree biir 2024 la ñu jëm te gannaaw 2024 ñu boole suñu doole boole suñu xam-xam daal di soppi réew mi yeewi askan wi ba yaakaar gi Sénégal yàgg sénégalais yàgg am xaar gi ñu yàgg xaar lu weesu 60 ans loolu lépp firndewu ci ni ñuy yoree réew mi est-ce que pare ngeen pour loolu. may wax nag tamit. Mais wax tamit ne élection la ñu jëm dégg naa ay nit di jël ay initiative ne dañoo bëgg moi ñi seq mbir mi daal signer benn charte pour la non violence man de damay wax man Ousmane Sonko du signer benn charte pour la non violence. rafetlu naa rafetlu naa sen yene seen yéene torop waaye nag gis nga violence kenn ku ne su defee li mu war def kenn ku ne yem fi nga wara yem violence du am te nak bu ñu nangu parce que amna do xamné xam ne dafa commencé ni rok na fekk ngeen baal ma si wax ji parce que violence yépp ci benn côté la jógee musoo gis opposition attaqué

man maa ko wax dama ne gis nga Sénégal Sénégal dafa am ay nit yoo xam ne heureusement bëriwuñu ñun mën nañu wër ci télé yëpp di ñu saaga loolu tax ci der day romb mën nañu fay ay nit ñuy bind bis bu ne di wax lu ne si ñun day romb waaye yenu ay yat yenu ay paaka ñëw de dañ ñuy dóor duñ ko nangul kenn dama ne dama ne xam ngeen ni ñii tolloo ñoom ñoom duñu sax seen morom moo tax ma ne leen ku leen xosi dóor leen ko may yéen ku leen matt ku leen matt bu leen bëñi loolu rek mooy solution bi parce que duñ ko seqoon ab nit sax ñu wax waaye xam ne ñu ngi ko seqal ñu doon kon fu may daanelee nag mooy nañu mobiliser wu de tous nos ci Sénégal ndax nag ñoo ngi présenté candidats yi waaye fàtte nañu nag ni candidat ngi fii candidat fan kon dama bëgg ngeen ànd ak wax ni dama bëgg ngeen wax ndax enjeu bu rëy rëy la

nee naa nag sama mbokk Casamance yi ku ñu ne alhamdulilah war nañu ne nag jërëjëf Ousmane Sonko. ndax dinañ leen dinañ lu ne ci jamono ji ñu toll waaye le 23 ca guddi ñii bu ñu amee 25 pour cent ngeen xam ni duma Ousmane Sonko bu soobee yàlla kon. Nous mobiliser autour de tous nos candidats à travers le Sénégal Dakar nag ñëpp xam nañ ni Dakar mooy élection locale man Bokuna naa ci ñu taxaw samp lépp lu ñu mënoon samp pour que Barthélémy Diaz nekk maire Ndakaaru xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax duma ci guddale ndax duma ko tàgg ndax dama xam jikkoom tuuti boo ko taggee rek mu sax xilaaf moo tax du ma jox lu bëri waaye li tax ma li tax ñu sonn ci mooy benn benn Barthélemy Dias du koo xam da ngay ànd ak xare jot nga wëlbatiku doo ko gis te man nag loolu ñaareel bi foofu daane rek Barthélemy Diaz kenn du ko jox mairie mu jaay ko Macky Sall dina ko jël en tant qu'opposant ko yor en tant qu'opposant ba 2024 ñeen waa ji ba biir bi weextal ñu ne ko rëpp mu yor ko mu ko yor en tant que mu ko yor en tant que ku bokk ak ñiy defar réew mi soppi réew mi moo tax ma ne Barthélemy Diaz maire de Dakar asalaamaaleykum